di gërëm nag daayira yi di ko tàmbale ci daayira muqaddamatul xidma bi nga xam ne moo yor jumaa ji sëriñ bi neen mi ngi leen di sant di leen gërëm ndax xam na ne bi mbas mi tàmbalee ba nëgëni def nañ liggéey bu rafet liggéey bu sell boo xam ne lu nit ñi doon séentu rek ëpp na ko kon sëriñ bi neen mi ngi leen sant ci seenu xer ak seenu njàmbaar di leen soññaatam ci fii ñu toll ndax xam nañ ne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 ñu fexe ba siyaare yëpp jàll te xam na ne jubaay suñu Tuubaa kenn du fi ñëw loolu la fa waaye li ñu war a sàmmonteeg àdduna ñu fexe ba sàmmonteeg moom